ngir yàlla lan la doo ma expliquer rek loo ñu teg awa Cheikh nit koo xam ne dóor nga ko def nga ko lu nekk demul kon li ko dem loo ne du la ndaw yi ngay seet dama lay yuuxu sàccee de dama bëgg nag foo jaaroon na fa toppaat ëtt bi amul xew laa la wax bambi waxal wax ji mu leer sama nopp dafa mel ni xale lay nëbbal jabaram de faa moo am problème aw benn tambaambaalu nekk ca ka du fi ci kerki kër gi bu mën ay yaay. mais eh, baxna na da nga bëgg ma dellu kër papa Ndiouga dina fa dem tay ji yow yaay ki sey ak ibnu yow bu sama bakkan bi wëdd sey force wala sa bakkan. sama bëggon ñaan baat.